أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور جعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا واشهد ان لا اله الا الله هو الرحيم الرحمن الذي خص شهر رمضان بانزال القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ci téere yàlla bi ba tey ci suratul baqara di jël tey ñaari aaya aaya 219 ak 220 ñaari aaya yi nekk sunu kanam suñ ñëwee ci li ñu ëmb ñoom ñaar danañ fekk kaan alarab fi ljahiliya yashrabuuna alxumuur arab ya ca ceddo ga buñ ne ceddo mooy jamono bi lislaam ñëwul lan moo doon seen jëf ak seeni mbir mooy dañ doon naan sàngara islaam daal di ñëw daa di tàmbale woo nit ñi ci kennal yàlla looloo tax wootekat yi woote lislaam war nañu jàng bu baax a baax alquran ak doxalinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na tey ci li tax nit ñi foñ diine daw lislaam mooy ñiy woote ñoo munta woote ñii jàngale ñoo mënta jàngale moo tax ñi ñuy jàngal duñu dégg ñii woon ñi ci lislaam ñoo mënta woote loolu bokk na ci li tax daaw bi échec te lii ñu tiim tey ci ay aaya alquran dinañu wan dëgg-dëgg mbir mi nee nañ arab yi avant l'islam ñëw dañ doon naan sàngara l'islam ñëw na lan la tàmbalee moom woo nit ñi ci kennal yàlla tey kenn ci ñun boo duggoon sa kër fekk ñuy fecc wala ñuy naan sàngara wala ñuy def dara nga koy tere rapidement boo duggee rek ci loolu nga jëm wala ah ci mbir mi direct de dañu rek dóor yàlla deful loolu yonent bi dafa ñëw fekk ñu naan sàngara waxul sa waxu ci li ci yëm lu tax dafa am loo xam ne loo xamante ne ci nit ñi su fa nekkulee boo teree tamit kenn du bàyyi mais bu fa nekkee boo teree ñu bàyyi au contraire sax dootuñu ko def ñenn ñi dañuy dem ba xam ne lii jaaduwul ñu ba mais booy tabax te njëkk ci kaw du dem ci suuf la ñuy tàmbalee mu ne yonent bi ñëw tàmbalee woo nit ñi ci kennal yàlla ak ngëm yàlla gëm dee gëm dékki lu tax iz huma albaithu alqawi ala istiqamati fi lxaya nee na ñaar yooyu su ko nit ñi jëfee mooy ngëm yàlla gëm dee gëm dekki wéetal yàlla su ko nit ñi gëmee rek dañuy jub su nit ñi gëmee ne dañoo war a kennal yàlla gëm ne dañoo war a gëm dekki ñaar yooyu bu ko nit ñi defee rek seen dund day baax moo tax gis ngeen lu ëpp ci alxuraan wala ci hadis yonent bi day wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axir ñaar yooyu bu ko nit ñi amee rek seen dund day jaax wala maa haaj xolal yonent bi diir bi mu nekkee màkk diir bi mu nekkee màkk yëpp ñaata at fukki at ak ñett gaañaa ngi naan alxuraan waxu ci de fukki at ak ñett yonent bi di woote waxul bàyyi leen naan sàngara gars yi di naan rek parce que xamul tax dafa am dafa am lu gën a garaaw naan sàngara mi ngi fi foog mu jógee fi ba pare sàngara doog fi jóge mooy lan mooy bokkaale ñun nag wootekat yi tey loolu moo ñu yàqal dañu xamul aw al awlawiyaat loolu ñu naan fiqhu daawa al awlawiyaat loolu lañ jàngul mooy li gën a yay priorité ah yoon ngeen koy waxee jërëjëf al awlawiyaat maanaam chaque jour dëkk boo dem xeet woo dem dafa am loo xam ne moom la ñuy wax al awlawiyaat lu gën a yay loo xam ne ci la gaa yi war a tàmbalee mais mal asaf ñun xamuñu loolu fukki at ak ñett yonent bi nekk mag gaa ñi di naan alquran tudd ko walamma haajara rasul sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi gàddaayee moom ak sahaaba yu bari jëm Madine yonent bi samp société islamique atte yi commencé wàcc lenn lenn commencé ñëw yàlla nag commencé duut baaraam ci yenn yu ñaaw yu gaa yi def naan sàngara sàcc njaaloo ñu commencé wax mais yii yëpp alxuraan fekk na gaa ñi di ko def waaye tudd ko lu tax ndax dafa am loo xam ne ki koy def li tax mu koy def dafa am lu fa nekkul su fa loolu nekkee dootu ko defati loolu war faa nekk waa ji bàyyi ko nag loolu la yonent bi ñëw pour tabax ko moo tax foog ñu xam ñun ñiy woote fan la ñuy tàmbalee ñi ñuy woo xam nga ku gëmul yàlla nga ñëw naan ko del julli te gëmul yàlla nga naan ko del julli wala yow daal lu tax doo dem jàkk te moom gëmul yàlla da ngay sona sa bopp da nga war a fexe ba ngëm gi dugg ci xol bi ba pare su gëmee yàlla rek kenn dootu ko wax jógal julli mu ne lenn daal di wàcc ci mbirum sàngara lu tax mooy gars yi dañ doon julli sax fekk ñu ngi màndi ñu jàpp aaye di leen jaxase yàlla ne leen ya ayuha alladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara e yéen ñi gëm yàlla bu leen bu leen jegeeti julli fekk yéen yéen a ngi màndi xoolal de kon ça veut dire que heure yi dul julli jotul mun ngeen naa naan islam permettre leen lool ñun mënuñu am tolérance yàlla ne leen bu ngeen mandeetee bu leen jege julli kon ça veut dire que buñ julliwul mën na noo mandi gis ngeen début l'islam li lépp yaatu dënn buy islam yaatu dënn fekk nit ñi di def lu bon jëlul yar rek dóor mais muy def ndànk-ndànk dañu laaj benn waay ci Égypte ne ko bu ngeen jëlee pouvoir bi da ngeen di samp jaasi ji xanaa commencé dóor commencé muuruloo nit ñi fal force waa ji daal di ne kon su boobaa dañuy tabax société nafiq mu ne ko ah naka ngeen di tabaxee société nafiq mu ne kon da ngay gis kuy muuru te yàlla taxut te su boobaa day nekk nafiq dañu bëgg kii muuru day muuru ngir yàlla du muuru ngir sàmba du muuru ngir jaas gi du muuru ngir police ak may ramasse su ma muuruwul mais day muuru ngir yàlla lu nit ñi bara bàyyi xel nit jaamu yàlla tey buñ fekk sa kër buñ la ragalee di woor ngir yow boo fa nekkut bu ñuy muuru ngir yow boo fa nekkut bu ñuy julli ngir yow boo fa nekkut mais boo fexee ba ñu xam ne ni mu la waree la leen waree ni ñu ni nga nekkee jaamu yàlla ñoom lañ ko nekkee yow sax boo buggee yéexe ñu ne la diw papa nijaay ah moom sax dañ lay soññ mujj gi mbokk yi bi islaam bi aaya bi ci njëkk a wàcc di wax ci mbirum sàngara yàlla ne leen yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm yàlla laa taqrabu salaata bu leen jege julli wa antum yéen fekk sukaaraa yéen a ngi màndi fa kaanu yashrabuuna illa fi awqatin muayyana commencé gu ma sarxa laa nekk dañ daan naan lu dul ci yenn heure yi gis nga bi aaya bi bi yàlla njëkkee wax aaya bi daf ci am lenn ci ñoom ñu ne ah loo xam ne dalay yàqal julli ba yàlla naan la bul ko def ci waxtu julli man bàyyi naa waaw man bàyyi naa bàyyi naa am ñu bàyyi am ñu continuer yi naan ñu diviser wu ñii bàyyi ñii bu heure bi ju- xawee jege si ñu arrêté ñeneen ñi moom bàyyi complètement ñeneen ñi troisième per groupe bi di accéléré moom di naan rek wa hunaaka kasaratu tasaulaat laaj yi nag daal di commencé bari xawla shurbil xamr shurbil xamr ci côté naan sàngara waaw loo xam ne yàlla da koy tere ci waxtu julli loo xam ne nangam loo xam ne nangam aaya bi daal di wàcc mooy bi ñu war a jël te yàlla mu ne yasaluunaka anil xamri wal maysir gaa ñaa ngi lay laaj sàngara ak carte fa ajaabahum allahu bi qawlihi yàlla daal leen di tontu ci waxam qul fihima ismun kabir wa manafiun linnas wa ismuhuma akbar min nafihima yàlla ne ñi ngi lay laaj sàngara ak carte tontu leen nga wax leen ni sàngara ak carte day bàkkaar bu rëy moo ci nekk ismun kabir waaye wa manafi linnas amal nañ leen nit ñi njëriñ waaye wa ismuhuma akbaru min nafihima bàkkaar bi de moo ëpp njëriñ li fa taraka kasiran ñeneen beneen beneen groupe daal di bàyyiwaat ñaata groupe ñoo bàyyi beneen groupe bi ne loo xam ne bàkkaar bi moo ëpp njëriñ bi ñooñ daal di bàyyi maanaam lii yëpp suñ ko yàlla di wax yàlla daf ñuy jàngal pour nu ñuy organiser sunu dund pour nu ñuy jàngalee pour nu ñuy yaree doo xëy rek ci kër gi diine dab leen jànguñu ko judduwuñ ci yarwuñ ci nga xëy rek jël sa yar di dóore wala ngay gëdd ka arsale ko yuuxu waaleykum salaam wa rahmatullah comme ni ko benn mbokk defoon gis sunna rek dem seen kër damm kuddu yëpp ñu ne lan mu ne lekkee kuddu dafa araam loxo rek xam nga loolu day tax nit ñi féttéerlu am na nooy ñëw di digle diine même julli am na noo koy santaane da ngay gis ku taxaw ne la xoolal julliwu ma naa dem safara am na benn xale bu jigéen da doon liggéey ci benn kër ndeysaan benn soxna su baax nekk fa nag soxna su baax ku baax la mu xëy gis xale bu jigéen bi meeso rek mu ne ko yow soo jullee yàlla du ko nangu parce que da ngaa mees soxna si ne ko ah bon lu tax yàlla du ko nangu mu ne ko da ngaa meesu soxna si ne ko waaw kon de ma bàyyi julli parce que man pare gu ma pour dindi sama mees yi kon de julli laay ba daal di bàyyi julli complètement mu toog di ko xool julli jot ndaw si bañ a julli mu ne ko eh mu ne ko ah comme bu ma jullee yàlla du ko jël lu ma koy lu ma koy defee gis nga ni mu ko ko waxee la maanaam jigéen ñaa ngi ci kaw yàlla lii yëpp daf ñuy wan xoolal yonent bi tàmbalee màkk alxuraan di wàcc yàlla xam na ne sàngara baaxul yonent bi xam na ko mais xoolal tudd ko fukki at ak ñett yonent bi tuddul sàngara ba mu dem mitin di commencé samp société bi ñëwul tamit tere mais dafa commencé indi ay aaya lan la njëkke heure julli bu jotatee buy waaj a jot bu leen naan gars yi commencé di ci laaj mu ne leen am na bàkkaar bu rëy moo ci nekk waaye am na ñoo xam ne amal na leen njëriñ waaye bàkkaar bi moo ëpp ñenn ñi daal di bàyyi encore mu ne gars yi commencé ñeneen beneen groupe bi fa kaana Omar moom Omar ibnul Xattaab doon na wax ne yow yàlla mbir mi daal yàlla nag ñu ci leeralal ba mu leer allahuma bayin lana fi lxamri bayaanan shaafiyan yow yàlla yàlla nag ñu leeralal ci sàngara mbir mi ba mu gën a leer fastajaaba allahu taala yàlla daal di nangu ñaari Omar ba nazalat ayatul maida aya maida nag daal di wàcc aramal sàngara complètement yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu innama al xamru wal maysiru ba mu egg ca wax ja fa antum muntahun fa qala umar allahuma intahayna rabbana intahayna rabbana wa bizalika xurimat alxamr wa xurimat almaysir ca jamono boobu nag la yàlla aramal sàngara aramal carte sunu borom subhanahu wa taala woo leen ci baatu ngëm ne leen sàngara ak carte araam na araam gu dagg gu mat sëkk yonent bi daal di jël yar nag daal di teg waaye xoolal kañ la tàmbali makka ba Médine Médine ay at ñu doog a jël yar bi teg parce que lu tax parce que léegi am nañ société islamique société boo xam ne amatul kuy bokkaale amatul kuy amatul léegi lu tax loi yi dañ fa commencé di wàcc nee na yonent bi daal di tëral yar yu ñuy ceew ku naan sàngara ba huwal jald mu daal di tere nit ñi ne bu kenn naan parce que ku naan dañ lay caw yemu ci sax mu ture mu tuddee ko ummul xabaa'is ndey ñaaw téef yi sàngara mooy ndey ñaaw téef yi yi ñaaw yépp sàngara mooy seen ndey nit bu naanee sàngara da ngay boole sa jikko bi nga yor ak jikko mboolem rabu àll da ngay am jikko gaynde am jikko xaj am jikko mbaam am jikko golo am jikko ginaar am jikko xar am jikko béy jikko rabu àll yëpp ngay am lan mooy jikko gaynde gaynde dafa ñeme wala ñemewul ku naan sàngara da ngay dégg ñu ne ku naan sàngara du jommi bu jinne ne cay mu ne ko xaay da ngay re da ngay sóob rek day ñeme day am fit lan mooy jikko xaj ñeme naa ñeme ngaa séeg ak sa way jur wala ñeme nga dem ba fu ilimaan di nekk nga saw fa xaj mun na ñëw ba ci jàkka saw ci jàkka ci xaj day daw ba càgg rek yëkkati tàng bi daal di saw dem xaar xaaratul jàkk naankatu sàngara ñeme na lool ñeme naa ñëw ba fu imaam nekk wala kaamil mu saw ci yoonam nekku ci jikko xar bi mooy lan mooy ñeme naa séeg ndeyam naankatu sàngara ñeme na sëy ak way juram bu jigéen lan mooy jikko golo gi mooy koñ boo romb mu xumb koñ boo romb xale yu topp la yoo yoo yoo yoo nga ànd ak ñoom bu ñu la yóbbee ba angal we nga dellusiwaat bu la nit ñi jàppul yóbbu sa kër tëj buntu kër gi doo ñibbi mooy golo lan mooy jikkoy mbaam bi mooy buñ la doon dóor fii ba suba doo dégg liñ lay wax mbaam moo mbaam da ngay dóor ba sonn gars yi nee nañ mbaam bu xëyee suba danaan borom ki ma moom bu ma dóorul tey yàlla na dee moo lañ tuddee ko mbaam ba la dóor ba sonn dara sàngara baaxul moo tax yonent bi de ko ummul xabaa'is ndeyu ñaaw téef yi yonent bi daal di teg yar bi nag ne ku naanate ñu caw ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min asrati saa an yurfaa al ilma wa yazhara al jahlu wa yashrabu al xamr yonent bi nee na bokk na ci mandraga yowmal qiyaam suñ demee ba yowmal qiyaam di waaj a jot lii wan nit ñi ne yowmal qiyaam jege si na mooy dañ fiy jële xam-xam xam-xam dootu fi amati wa yazharul jahl mu ne feeñ réer daa di feeñ wa yushrabal xamr ñu naan sàngara ñett yi yonent bi joxe ne bokk na ci màndarga yowmal xiyaam gis ngeen ko wala gisu leen ko jamono bu ñu nekk xam-xam amatul valeur surtout xam-xamu diine jàkka joo dem ka fa war a jiite joxuñu ko jàkka ji ah jàkka joo dem laa wax ña war a jiite jàkka yi ca koñ ba joxuñu leen jàkka yi ñan ñooy jiite jàkka yi ay douane yu retraité menuisier yu retraité ay juuti yu retraité ay ancien combattant yu retraité ñee nekk ca noddu ga ñee di jiite ñee yor kees gi ñu organiser seen association daa di sànni boroom xam-xam ya ca xaj di leen guerre ñenn ñi sax dañuy bàyyi imam bi di jiite waaye xoolal dañ naan ko xoolal gis nga imam na nga yema ñoo la fal laa la wax na nga réglé sinon léegi su waaye imam bi ragal leen day sànni waaw buy wax nda- day raay rek waaw du ñeme wax dëgg ki parce que lan xam nga yow dëkkoo ci koñ bi dañ la fi indi rek na nga jiite nga normal ah c'est normal kañ nga fi dëkk ñun fii fii ñoo ko sanc bi ñu teg jubaa ji fekke woo ko waaw na nga xam lu ñu la waxul nag bu defee imam bi comme moom dafa bëgg njiit moom it mu commencé ndeysaan di négocier mbir yi quoi pour lan pour nekk imam rek moom it an yurfa al ilma mooy dañ fiy jële xam-xam dañuy dem ba xam-xam dootul amati wa yazharul jahl réer rek mooy feeñ réer fu nekk ñi réer ñoo fa nekk wa yashrabul xamru ñu naan sàngara yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam la yashribanna naasun min ummati alxamr yusammunaha bi gayri ismiha danañ dem jamono nit ñi dana naan sàngara waaye lu tax dañ koy tuddee beneen tur pour mën ko naan yàlla sàngara la waxoon ñu ne non kii Ricles la tudd wala champagne wala Johnny waaxu wala Flac wala la ber la gazelle gars yi dañu laaj alaaji Maalik ñu ne ko yàlla de sàngara la wax aw ñool dafa araam léegi nag ñun am nañu yoo xam ne dañ ko defar ba mu méngoog jamono ci naanu kaay beeg naanu kaay beeg fañ koy denc soo demee ci yenn baar yi wala yenn casino yi butéel sàngara bi dañu former nit ni mu koy sottee ak li muy sol ak ni muy téye butéel bi gant bu weex bi muy sol ak butéel bi ni mu koy téye ak ni mu koy sottee dañ koy former ak kaas bi ni ñu koy defaree la hawla wala léegi nag loolu moom lu ci yàlla wax mu ne leen innama alxamru asnaafun maa bayna ricles wa champagne wa beer kulluha haram ay façon la rek moo tax yàlla utiliser baatu sàngara xamra xam ngeen xamru lu muy tekki ci arab mooy luy muur xel gis nga jigéen buy muuru lan lañ tuddee muuraay bi ximaar ximaar mooy suy muur kanam gi da ngay ñu ne ximaar mooy dafa muur kanam gi maa sàngara day muur xel ba xel dootu fi nekk sàngara nag dafa am bu ñuy naan am bu ñuy fóon am bu ñuy pikiiru am bu ñuy lok am bu ñuy tux wala du loolu yëpp sàngara la bu ñuy tux nu mu tudd yamba léegi yéen sàngara dégg booy taw ñu ne bon sama bon bi moo tax it bon rek bon bon boo ko bàyyi rek bon bi ñuy tux bon ngeen ko tuddee ah yamba bi ñuy fóon bi ñuy pigiiru héroïne gis ngeen gis ngeen tubaab yàlla ne naan sàngara tubaab indi ay façon non da yàlla naan la wax ah man naanuma dama pigiiru kii ne naanuma damaa fóon kii ne naanuma damaa lok pion bi jël pion bi lok muy seey ndànk-ndànk di dem nga koy wan comme tàngal mant rek ñu ngi koy maccee muy dem muy dem ba nga am li nga bëgg keneen ki moom day pikiiru pour am li mu bëgg kee fóon pour am li mu bëgg loolu yëpp sàngara la yëpp a xaraam jullit du ko def lépp a xaraam dañ ko tere jullit yonent bi nee na nit ñi danañ ko naan tudde ko yeneen tur yu ko islaam indiloon gis ngeen wa yusammunaha bi xayri ismiha ñu tudde ko yeneen tur yenent bi ne wala yashrabu alxamru almumin xiina yashrabuha wa huwa mumin képp ku naan sàngara nga jël butelu sàngara wala ay doom yu lay màndiloo wala ñax bu ñuy tux di la màndiloo wala lu ñuy pikiru di la màndiloo wala lu ñuy lok di la màndiloo jamono bi nga koy def yonent bi nee na yow gëmatoo yàlla instant bi ngay jël butel bi di naan wala nga jël pikiir bi di diw di pikiiru wala nga jël doom bi wala nga jël sagar bi di di xeeñcu yonent bi nee na wa jamono boobu yow amatuloo imaan génn nga ci ngëm yàlla ba set amatuloo ngëm sàngara nag ci li gën a yées ci àddina ci la bokk lu tax yàlla da koo rëbb laana allahu alxamra yàlla da koo rëbb ki koy naan yàlla rëbb na ko shaaribaha wa saaqiha ak ki koy jox mu naan ki koy naan yàlla rëbb na ko ki koy sottil ci verre bi muy naan yàlla rëbb na ko wa baaiaha ak ki koy jaay wa mubtaaha ak ki ko koy jaay loo wa asiraha ak ki koy liggéey wa musiriha ak ki ko koy liggéeyloo borom usine bi yàlla rëbb na ko borom usine bi rëbb na employé yi amoon na benn société bu tudd ah Subway yàlla dafa rëbb borom rëbb ñi fay liggéey ak Sibras ndax dañuy jaay sàngara ak hôtel yi yàlla rëbb na leen borom hôtel yi rëbb ñi liggéey ci hôtel yi ndax hôtel dañ fay naan sàngara ak auberge yi baar yi da ngay gis sénégalais bu luwee këram ñu def ko baar mu naan ah en tout cas bi ma luwee baar bi ba léegi daal xeexatuma ci luwaas dañ ma koy indil sax wala ñu day saa ñu dajale 10 mois fay ma ah gis ngeen yàlla ni mu rëbbe sàngara yàlla yemul ci borom société bi rek de wa xaamilaha ak ñi koy yenu ñi yenu kees gi di ko yab ci oto bi ak ñi koy wàcc transport bi ak boro kii dawal camion bi yàlla rëbb na ko wa aakila samanaha ak ki nga xam ne moom fële la toog gars yi dañuy liggéey loolu yëpp ba pare daal di koy versel ci compte bi ne ko dugal nañ 10 millions bénéfice mu dem jël moom kooku tamit yàlla rëbb na ko kon sàngara baaxul de xoole yàlla fi mu tàmbalee ci kan ci ki koy naan ki koy naan ba au sommet ca kaw a kaw kaw boos ba ki nga xam ne moom day romb fii nga naan eh macha allah kii de moom baax a ngi nii ndax feeñu ci waaye mi ngi lekk njëg gi aakila samanaha kooku tamit yàlla rëbb na ko waaye léegi nag kuy liggéey lii te di woor nag di ci jox say doom ñuy ndogu say jabar di togg ndogu yi ah wala ki ci tabax jàkka nag ah ki ci dem ja ki ci aji màkka nag ah ki ci takk jabar nag loolu yëpp yàlla rëbb na ko dara baaxu ci ndax alal ji daganul daf xaram sàngara baaxul mbokk yi nañ bàyyi xel bu baax sàngara baaxul yàlla da ko rëbb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël yaram teg nag mu ne ku naanati ñu caw ko moom yemu ci sax waaye gis nga dafa soññ jullit ñi ba jullit ñi bàyyi mu ne leen mudminul xamr laa yukallimuhu llahu yawma alqiyama wala yuzakkihim wala yuzakkihi yonent bi ne naankatu sàngara yàlla du wax ak moom yowmal xiyaamati kuy naan sàngara yàlla du wax ak yow jamais salaasatun laa yukallimuhumullah ñetti nit yàlla du wax ak ñoom wala yuzakkihim yàlla du leen setal wala hum azabun alim yàlla dina leen buggal yowmal xiyaam kan moo ci njëkk mooy mudminul xamr naankatu sàngara léeg-léeg nga gis jullit bu dugg ci baar ne na ma sut na ma sut gars yi nañ leen dem ma pee leen te nag gis nga ñiy def lu bon ñu ak ñoo tabe da ngay gis kuy tox cigarette day yor paquet nga ne ko saawaay doomu tuxal mu ne ni nii paquet bi gis nga kii naan sàngara buy demee di pee gars yi danaan na ma sut day dugg taxaw ne tegal leen kees yi ba mu sut ma ñu tegal ba mu sut mu ne gars yi bismillah bu fi dara des gars yi gàddu butéel yi daw kuy naan sàngara du maye kaas de kuy tux cigarette du maye daggit xanaa ku walaa kaana waaye ku ci am paquet sax ngay maye doo wala bu ne ñum bi da lay jox taalal la nga jël almet bi taal mu ne tos kare nga teg na yàlla mooy naa la furr yàlla ne yaa ko wax nga ni ko sikki sàkk ni ko ci mu ne signeel nga ni nii tamponeel nga ni nii waaw mooy cigarette waaw waaw yal nañu yàlla musal siin gi sikki la siin gi dafa sikk cigarette siin la boo koy win si dafa sikk cigarette kaaf gi kéeféer la raa gi reewande yaa gi yàq taa gi tës say bokk ku tëwul say bokk doo ko def da ngay tës sa papa doo ko def da ngay nëbbatu wiiri fële tux ba pare ñoo jël parfum diw macc tàngal mant yéy si ngoom loolu yëpp lu la ci fekk baaxul boo waxee gaa yi naan araamul dafa araam wala tulqu aydiyakum ila tahluka bu leen dugal seen loxo yi ci lu leen alak lan lañ bind ci paquet bi lan lañ bind ci paquet bi abi dangereux pour la santé dangereux la ñu wax ci sa wér gu yaram yàlla ne la bul dugal sa loxo ci lu lay alak ñu bindal la yow lii ngay def dalay alak kon kay doy na beneen bi mooy xoolal yàq xaalis bi cigarette paquet Marlboro lu muy jar 400 500 paquetu Marlboro 500 ki tox ki tox deux paquets wala trois paquets wala quatre paquets par jour 1500 par jour ah weer wi 45000 at bi 45 at bi ah at bi ñaata la. cinq cent quarante mille fukki at moo tax tokkat cigarette yi seen waajur yi dañu leen war a alak jënd na terrain VDN fukki at jënd na terrain VDN billaahi wallaahi taala fukki at kuy tox cigarette fukki at boo ko épargné jënd nga terrain VDN calculer leen ko cinq millions quatre cent amul terrain cinq millions quatre cent ki tox ñaar fukki at am na am na fi ñu tox ñaar fukki at ñaata xaalis la ñaata xaalis la ah 800 millions 10 millions 800 mille allahu akbar nga def ko nii ci jaww ji mu dem fur 10 millions fur muy dem rek dinaaw 500 francs sax boo ñëwee ne papa dolli lii ci ndog bi wala nga jënd ko ko warga ak suukar gis nga ñi koy jaay di koy jaay ñi koy ñi koy jaay ci bitik
dafa haram cigarette baaxul sàngara ak cigarette baaxuñ gis ngeen mbokk yi toxkatu cigarette économiste yi lii ñoo ko def ci cigarette te paquet cigarette bi sax bu bu yomb la ah imagine leen bi- waa ji nga xam ne paquet bi da ciy bind turam cigarette bi mu bind ci turam ah boyaar ay boya yor boo xam ne sama digg di gis yéen jaay jaay jëf muy waa ji boyaar lay dox nga gis mu naan sa- da- da- da. waaw sa patron ah cigarette dañ ci bind turam turam la ci bind loolu ñaata la xaalis ñaata at mu koy def 10 ans 15 ans 20 ans cigarette bi ngay tox dañ koy commande du jóge sax Sénégal bo ah commande am lekk ba mu rafet indil la nga dugal sa conteneur nga ñëw teg inna lillahi wa inna ilayhi ay doomu aadama moo alko boo koy seet te mu bëgg nga xam ni jaaroon na fi dangay xool cigarette fu mu ko fay day fay cigarette bi foofu.
nga xam ne ñëw na fi tey xoolal rek bu ñu bëggee xam ndax xëy si na tey dañuy xool sa fi fi ñuy fayee cigarette suñ gisee fay na fi rek ñu xam ne ñëw na tey loolu musiba la amul lu ñu lay xàmmee lu dul cigarette
El Hadj El Hadj la ci bind waaye waaye bu doon la ci bind leneen lu dul El Hadj El Hadj Hadi allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahuma ajirna fi musibatina wa axluf lana xayran minha te dara tubaab yi moo nu ñëw ñuy nax rek xoolal Europe dañ fa tere cigarette tere fa panneau publicité cigarette tere ci place publique yi ku tux yenn place yëpp ñu tere fa ku tux hôpitaux yi marché yi hyperma ah xoolal ñun Afrique xam nga lu tax parce que société bi day ñëw di financer ay milliards gouvernement bi gouvernement bi daal di koy boyal muy ñuy tux cigarette parce que ñoom xooluñu xooluñu intérêt doomu aadama yi seen wér gu yaram ñoom milliards yi ñu leen di jox quoi milliards. war mooy mooy làmb yi ngeen di gis làmb yi ñoo ñoo koy financé sàngara si ñooy financé làmb ji yépp yu bon yi ngeen di gis nii ñooy financé loolu tax làmb ji am xaalis yu bon yi am xaalis parce que xaalis boobu la ñuy jël dugal ci bu defee cachet bi bëri da nga réegi benn ñaari minute rek ay seconde rek ñaata million loo xam ne ministre yi sax amuñu ko ban ministre moo fiy def moo fiy liggéey seconde million ministre yi balaa ñuy fayeeku weer dee ah wala te ñaata lañ leen di fay seen salaire ay 2 millions ay 3 millions xoolal ñi- benn mbër rek seconde ñaata 3 secondes ñaata millions ay 200 millions 2 secondes da ngay ne ñu bëre bi ay une minute la durée une minute 40 millions allahu akbar
mais Seydou man de xam naa ne cigarette ak la la xeetoo moom yëpp képp ku ko yaa ngi koy def te bàyyee ko boo boo dee balaa ngaa dugg ko lépp la jël.
waaw loolu moom wér na dégg ngeen góor gi li mu wax de te it sàngkatu néew boo xamante boo ndax ndax yë- da xam naa dañu bari sutura.
Hmm.
waaye la ñuy gis ñu ko wax képp póon la rek póon ak xeetam du dem àllaaxira man la de néew boo dee dañ yenn saa yi nga gis ay génn kay yëpp da nga koy yut ba mu jeex tàkk est-ce que xam ngeen ne póon balaa nga xam ne bon na.
kii du ci takk garabu póon picc du ci takk garabu póon picc du ci takk la la yenn saa yi nga nekk benn waaye mu ne xam nga ne rusul Sénégal ñu ne non euh, araamul dañ ko sip ndax iblis moo ci saw iblis kay ci lu mu saw wallahi sa mburu ndogo bi buñ ci sawoon ndogo ndogo iblis ni saa nga dégg sénégalais bu ne non non c'est que soo gisee ñu sip ko iblis moo ci saw iblis kay lu mu saw kay dëgg-dëgg waxuma la kon sip kon kay dañ ko war a araama iblis billaay wallaay taalaay sa soxna si bu sawoon ci dara doo doo kaas bi doo ci naan bu la tegaloon ndogo ngay ne mu ne pourtant kaas bi dama cee saw sànq raxas ko boo ko pesee yuñ ne la iblis moo ci saw te loolu dañuy wax rek sax waaye comme seen wax la ci seen wax ji sax dëgguwut mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ñett yenent bi nee na ñetti nit yàlla du leen xool yàlla du wax ak ñoom ki ci njëkk mooy naankatu sàngara ñaareel mooy aqun li waalidayhi kuy dënge sa ñaari way jur ku teg sa papa ak sa yaay fitna yow doo dugg àjjana mukk yàlla du wax ak yow jamais ñetteel mooy musbil israel mooy kuy buub ay yéreem kuy buub ay yéreem waaw léeg-léeg nga gis benn waay boo xamante ne tubéy yi mën na 40 kilos mu ngi ko takk ci xotti pooj yi ci pooj yi la ko takk daanaka genn wàllu tubéy bi tànk yi da ciy dëgg wala bu dee garaam mbubu la mu ngay buriku comme robe mariage Sénégal dañoo jiital dañoo juutal diine bi yàlla dana woon góor ñi na seen tubéy yi gàtt seen yére yi na gàtt jigéen ñi seen yére yi na buubu ñu ne non non ñun jigéen ñi ñooy buub góor ñi ñun góor ñi ñooy diri jigéen ñi na gàtt moo ko juutal fi mu nekk jigéen ñi ñooy sol yu gàtt góor ñi ñooy buubal te yàlla dana woon jigéen ñi ñooy buubal góor ñi ñooy gàttal ñu ne déet déet loolu rafetul yow yàlla ñun ñoo la gën a xam ñoo la gën a xam ak sa yonent yëpp ñun ñoo leen gën a xam ñun jigéen ñi incha allah ñun ñooy gàttal góor ñi ñoom buubal leen acca bismillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu ne wax ji mu wax ne deuxième aaya bi qawluhu taala fihima ismun kabir wa manafiu linnas mbokk yi ñaari aaya yi moom la ñuy jël tey ngoon gi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu sabaat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم inna allaha azizun hakim sunu borom nee na yasalunaka beneen a ngi ni kii ñu doon laaj keroog yasalunaka gaañaa ngi lay laaj yow muhammad kon mbir mi du yow jógewul ci yow comme dañ lay laaj du yow gaañaa ngi la wër di la laaj lan lay lay laaj anil xamri ci liy muur xel alxamr mooy luy muur xel maa xaamara al aql mooy luy muur xel wa gattaahu mu koy tëj fa asbaha saaribu saaribuhu laa yumayizu wala yaqilu su waa ji utiliser loolu ba pare ba mbir mi muur xelam daal di koy tëj moom mi naan loolu wala mu jëfandikoo ko dootul mën a ràññee dootul mën a am xel lii kay baaxul ndeysaan benn boroom xam-xam yal na ko yàlla yërëm génn na àdduna mu ngi tudd Cheikh Abdul Hamid Kishki nee na l'islam mësta tere dara ñu ne cam islam lépp lu mu tere rek dañ naan cam lépp lu yàlla tere baaxul xoolal ki naan sàngara lan la ko sàngara di njëkk a def taqali ko ko xelam après di ko defloo jëfi njaay àll rabu àll te mun na sax nekk borom kër mën na nekk kilifa yenn saa yi mu dem sax ba puub tubéyam yenn saa yi mu ñëw def benn mbir moo xam ne bu sàngara si jeexee ñu ne ko yaa def li mu ne déedéet benn waaye daa jógee màkka de ñu koy nganale mu màndi ñu koy nganale de mu ne tat gaa yi koy ziyaas ne naan allaaji de daat tusngalu allaaji de daat tusngalu muy def jëf jëf jëf yoo xam ne ba nganale gi jeex ñu teg cinq jours caméraman bi indil ko cassette bi ndeysaan mu toog di xool li mu doon li mu doon def fa la ko bàyyee ndeysaan jabar ji ne ko xoolal nijaay ni nga meloon jabar gi yëpp di jooy sàngara baaxul dalay dalay dalay ñàkkloo personnalité kon bu ko yàlla teree nit war na ko bàyyi wala yàlla war ko bàyyi yàlla dafa bëgg nit moo tax nit lépp lu koy wàññi yàlla ne ko bul ko jege yàlla lépp lu mu tere dara baaxu ci hmm? sàngara dégg nga ko nee na benn dëkkandoom daa màndi nekk ci tali bi di dox ba ci àgg daal di mbëkk benn oto daanu nit ñi daal ne deena bi nit ñi ñëwee mu daal di jóg taxaw daa ne ana borom oto bi mu ne maa ngi mu daal di koy nuyu na ko demal man lo- ñun loolu reyuñu yëfu xale rek naankatu sàngara yëfu xale rek lay def sàngara baaxul da lay ñàkkloo personnalité boo ci yàggee ci koñ bi kenn dootu la wekk soo amoon njaboot kenn dootul wekk sa njaboot say soxna kenn dootu leen wekk kon yàlla bu nee sàngara baaxul yàlla dafa baax rek daf ñu bëgg rek moo tax mu ñuy tere loo xam ne wala sàngara nga gis borom kër gu dem àll ba ci tubéyam waaw benn waaye ndeysaan ci France dañ ko fekk mu ngi màndi yàq tubéy ji gars yi doon wër waa tabliix doon woote ji ñu daal di koy jël yóbbu ko jàkka ja simmi ko sangu ko moom set fóot yére yi solal ko yeneen yére yu weex tal tegal ko koppati daal di koy dugal ci ruq jàkka ji bàyyi ko muy nelaw bi mu nelawee ba màndi bi jeex mu yeewu gis boppam ci jàkk mu xool gisul ay yéreem mu daal di joxoñ kenn ci ñoom mu ñëw waa ji ne ko ana sama yére mu ne ko mu ngi ne ñu fóotal la ku moom yére yi mu ne ko ñoo la ko jox mu ne ñaata laay fay gars yi ne ko dañ la ko jox fii sabilillah mu ne luy loolu kan moo ma doon sang gars yi ne ko ñun ñoo la sang mu ne li ngeen ma defal lépp ñaata laay fay gars yi ne ko lépp def nañ ko ngir yàlla mu ne di yàlla wel yàlla ban yàlla yéen fii lan la gars yi ne ko ñun fii islam luy loolu gars yi di ko leeralal di ko leeralal di ko leeral ba waa jooju tey ci kilifa yi gën a mag ci jàkka jooju la bokk gis ngeen kooku tey ci wootekat yi gën a mag France la bokk loolu moo leen doon li ma doon wax sànq ne ci ñun ba léegi def ci am ñuy tegg yoon wi rek waaye yoon wi bu ñu fi jaaree ñëpp ñëw bu njaaree ci yoon bi ñëpp ñëw yàlla yorul loo xam ne koo ko présenté mu ne déedéet ah yàlla lim ñu indil kuñ ko jox soo ko jëlul rek ki la ko jox ni mu la ko joxee la moo tax jëloo ko lan la yàlla wax qad jaakum min allahi nuurun dikk na ci yéen jóge ci yàlla leer allahu akbar kan mooy bañ leer leer ku koy bañ nuur rahma hudan loolu moo jóge ci yàlla ñëw ci ñun kon suñ ko joxee nit jëlul rek niñ ko ko joxee moo baaxul yàlla subhanahu wa taala mu ne gaañaa ngi lay laaj sàngara li tàqale nit ak xelam ba tax dootu ràññee mu ne wa yutlaq lafzul xamr ala al asiril inab mu ne dinañ boyal yenn saa yi nag tuddee sàngara soo déggee sàngara rek ñu ne lu ñuy naan la lu ñuy naan waaye li- weesu na foofu wax naa leen ko sànq weesu na léegi lu ñuy naan kese dem na ca pikiir ya dem na ca xoox ya dem na ca lu ñuy fóon lu ñuy diwoo lu ñuy raay cëy Allahu akbar xoolal sàngara li muy def nit benn waaye ñu ngi nettali ne dafa ñëw ne benn xale bu jigéen dama bëgg njaaloo ak yow ñu ne ko loolu araam na mu ne ko ma njaaloo ak yow dinaa la rey de mu ne ko loolu tamit dafa araam jox ma ci sàngara si ma naan mu ne ko loolu daa araam bi mu forcé ñu daal di koy jox sàngara mu naan bi mu naanee mu màndi mu njaaloo ak ndaw si ndaw si da koy boole ji mu rey ko ñaata bàkkaar la def lan moo ko jural sàngara sàngara baaxul moo tax yonent bi tuddee ko ummul xabaa'is ndey ñaaw téef yi mu ne sunu borom nee na subhanahu wa taala gaañaa ngi lay laaj sàngara waaye est-ce que sàngara rek mu ne wal maysir ak carte carte loterie nationale hmm? PMI léegi sax gars yi affaire yi ga carte yi gars yaa ngi koy wàññi bu njëkk ba ay ay rak tagak mi ngi yokk ay teg teggeeg yëpp am carte carte lan moo tax yàlla tuddee baat bi maysir ci arab lu muy tekki mooy lu yomb loo xam ne doo def dara am alal dafa yomb yomb alqimaar mooy carte wa sumiya maysaran tuddee nañ ko maysar li anna saahibuhu yanaalul maal ndax ki koy def day am alal ju bari bi yusrin wa suhula du it ñëw jënd benn ticket 200 am 4 millions yomb na de pourtant làmb maysar la làmb ci maysar la bokk ci maysar la bokk ay seconde rek léewaatoo jaara jaara rek ñu ñu buux la ci saako yi wala dóor la benn kurpañ rek nga nga tëdd fële wala ñu yenu la rek nga ni buruñ daal di daanu ñu jox lay millions yi nga dem nga dem nga dem commencé y noos jënd 4-4 jënd tabax benn R plus 10 ah romb nit ñi nekk benn milliardaire bu ndaw goyo liggéeyoo goroo yettoo carte la baaxul maysar la moo tax yàlla tuddee carte maysar mooy defoo dara am alal dara nga deful carte tamit yàlla da koo araamal ni mu araamalee sàngara waaw sàngara ak carte la yàlla boole atte innama alxamr wal maysir wa yasalunaka anil xamri wal maysir yàlla ne dafa araam bépp xeetu carte nag da ngay gis tey nit ñi di tayle seeni kër ndax carte waaw coupe du monde dafa am carte wala amul carte dafa am carte coupe du Sénégal dafa am carte wala amul carte bépp match bu ngeen di football dimanche matin équipe bi indi 5000 équipe bi indi 5000 football boobu xaraam na daf carte la loolu mooy carte indi 5000 ma indi 5000 indi 1000 ma indi 1000 ku gagné jël loolu carte la baaxul te tey looloo bari ci àdduna bi coupe du monde dégg naa balaa équipe yi dem dañuy joxe engagement dëkk bu nekk dañuy joxe engagement ñu def tirage équipe bi di football dafa haram daa haram carte la te yooyu ñooyu ndaw yi bépp alal boo xam ne cosaanam dafa araam yonent bi nee na safara moo ci yey kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awlaa bi di nga gis nit kuy carte di carte di carte di carte ba ñu gàññee ko mu teg kayitu këram ñu gàññeetu ko ñu gàññee ko kayitu kër gi wii see ñëw bis di ko génnee fu muy mujj mooy torox moo tax dama ne sànq lépp lu lislaam tere rek boo ko gëstoo nga ni cam baaxul carte yombalal nit ñi ñuy am alal te duñu liggéey loolu la lislaam tere lépp lu yàq xelu nit ñi di ko muur ba nit ñi dootuñu nekk ay nit dañuy nekk ay rabu àll islaam tere lool xoolal njaaloo sëy ak jigéenu jàmbur ba mu am doom doom jooju judduwul ci yoon ëllëg ak si biir ñu ne ko kuy sa papa ku nekk ñeme taxaw sama papa ngi nii moom ñi mënul ñemewul wax papaam wala kenn du ko mën a tagg diw diw mooy papaam diw diw mooy papaam ñu yegg si ñu moom ñu ne damaa dem benn miraas maa ngi toog ñuy tagg ki dee da daan nodd ci jàkk ji daawul tardé alhamdulillah kii ku nekk di wax ba tàggaate bi jeex ñu ne nañ dugg ci miraas bi nag benn waaye ne am na nangamu doom doom bu nekk nangam lay am doom bu nekk nangam lay am doom bu nekk nangam lay am doom bu nekk nangam lay am jabar yi am nangam amoon na benn jabar bu mu fase woon waaye kooku am naa moom ñetti doom doom yooyu nangam la ñuy am ñu ne teg benn meer ne yëkkati loxo ñu xool meer bi mu ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam mu ne amoon na benn doom de boo xam ne amoon na benn doom boo xam ne ne boo xam ne lan takkul woon yaayam ah miraas bi ñëpp naan nii xool imam bi ne kooku day doon ndax man duma fi jóge ñu may woo ay tribunal ak police waaw naa am ndax bu fekkoon ne charia la ñuy àtte du am waaye fii amul charia ah oustaz ma ne ko man kay sama yoon nekk gis ngeen moo tax baaxul islaam ne bu leen ko def waa ji ba mu ñëwee ne yonent bi dama bëgg nga bàyyi ma may njaaloo ma ut ay gel di njaaloo ak ñoom saxaaba yi tëb ak jaas yi kii defar ñëw ba ci kanam yonent bi di wax lii yonent bi ne bàyyi leen jàmbur bàyyi leen ko yéen la yàlla yónni wala man bàyyi leen jàmbur ñu daal di toog gaa yi toog seen dënn yeeg seen bët yi di xulli waa ji yontu ne waa ji jig jege si mu jege si loo bëgg nga ni waaw nga jox ma liberté may may njaaloo xale jigéen yi mu ne ndax bëgg nga ko def sa yaay ya subhanallah waay dum bëgg nga ko def sa rakk bu jigéen sa doom nag bëgguma mu ne pourtant ñi ngi ko bëgg a def ay jigéeni jàmbur lañ ak ay yaayi jàmbur ak ay rakki jàmbur ñi ngi ko bëgg a def ah ay yaayi jàmbur lañ ay magi jàmbur lañ ay rakki jàmbur lañ ay jabari jàmbur lañ nga bëgg leen koo def waa ji ne kon yonent léegi nag ñaanal ma njaaloo denc sama xel ak sama xol yonent bi jël loxoom fëgg dënn waa ji ne yàlla yàlla na nga laabal dënnam ci njaaloo waa ji ba ba muy dee siggeetul xool jigéen gis ngeen yonent bi li ma doon wax sànq moom ni mu jàngalee nañu wootee noonu ñun dañoo teggi raay bi waa ji ñëw na ci jàkka ji di saw jàkka yonent bi ku demoon tey Touba saw fa maasa yaf yafaluuna bi ko duñ lay def ku demoon Tivaouane saw fa nag dañ lay rey ah pourtant nit saw na ci jàkka ju gën ñaari jàkka yooyu te reyuñu ko jàkkay Médine moo gën ñaari jàkka yooyu wala gënu leen moo leen gën nit saw na ci jumaay Médine kenn reyu ko gaa yi jël jaas yi ne dañ koy rey yonentu na bàyyi leen jàmbur bàyyi leen ko bàyyi leen ko ñu bàyyi waa ji waa ji taxaw jàpp ci waay yàlla yi naan jurr di xool gaa yi waay soof rek seen kanam su ne bàyyi leen jàmbur de bàyyi leen jàmbur de ñu bàyyi waa ji mu ne curr ba pare tëj tubéyam ñëw yonentu na ko ah kaay kaay mu ñëw toog yonent bi ne sotti leen ci sawwaa ji benn baagu ndox subbu alal bawli al arabi subban min al ma ñu jël benn baagu ndox sotti ci saw yi yonent bi ne waa ji place yu mel nii kenn du ci saw dégg nga fii néegu yàlla la boo bëggatee saw ngay laajte ñu wan la barab yi ñuy tuuree ndox nga dem saw foofu dégg nga dégg nga de mu ne waaw xam nga lu mu teg allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yàlla yàlla nag ma yërëm maak Muhammad ñeneen ñi sama yoon nekku ci yonent bi ne ko de sallallahu alayhi wa sallam moo mën a jàngale da ko waay sama waay mu ne ah mu ne ko bul xatal mbir mi mu ne lan laa xatal mu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu gars yi ñii say mbokk lañ dañoo mer rek dugal leen ci waay dugal leen ci ci lañ bokk yërmande yàlla yaatu na dugal leen ci waa ji daal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah giñ naa ci yàlla yow yonante nga yow yàlla la yónni waa gis nga jëflante bi ba léegi nangu ko bàyyi de fu waa ji jéem a fippu rek yontu baa ngi ko topp su maama noonu la ko yontu bi tuubalee su maamatu bintu asal dafa yónni ay nit ñu dem pour ñu dem rey yonent bi waaye loolu échec moom muy dem Kaaba ga di jaamu ji xërëm ya saxaaba yi daal di koy jàpp te xamuñu ne moom lañ jàpp guddi ñu yeew ko ba mu ne ngodd jàppoon ne bandi la parce que saxaaba yi dañ doon garder Medina guddi kenn du fa dugg def lu bon ñu wër Medina rek ci ginnaaw rek àll bi rek ñu fekk fa waajooju rek ñu jàpp ko ñu yeew ko ci buntu jumaa ji bu bër set yonent bi jógee këram di dem jàkka ji rek seen waa ji naa ne yéen xam ngeen kii wala saa wey ne ko non non xamuñu ko de te yonent bi daa joxoon ndigal ne nañ ko rey ne kii su maama la gars yi ne ah moo ngi nii de sama waa ji na nga def mu ne këj yonent bi daa dugg ci biir daan ne dem leen na yewwi leen ko na lekk na naan reyal leen ko rey leen bëy yi xar yi waaw lakk leen ba mu ñor mu lekk nu fir yi bu dara des ñi ñëw tekki ko palaat yi commencé xam nga yonent bu joxe ndigal ku nekk indi sa kër waa ji mel ni buur waaw ba yonent bi toog ba fàtte ñëw sama waa ji na nga def waay mu ne ko maa ngi fee ne ko doo tuub tuubuma man tuub tuubuma dara yonent bi dem plaat yi ñëw ba moom trois jours chaque jour yonent bi ne ko ah waaw doo tuub tuubuma waaw léegi ku comme tuuboo dama nga ñibbi foo jëmoon sax mu ne dama doon aji yonent bi ne ko demal mu dem ba ginnaaw Médine ne noonu kii ba bëggoon rey yónnee jàpp ma teral ma non c'est pas possible li mënul nekk mu del siwaat ne ko yow laa fi gënoon bañ mais wallahi fi ma toog yow laa gën a bëgg sa saxaaba yi ñi rek laa bañoon mais tey wallahi ñoo ma gënal sama ndey ak sama baay sa dëkk bii moom laa gënoon bañ ci dëkk yi mais giñ naa ci màggaa yàlla fi ma toog dëkk bi moo ma gënal fi ma nekk dama bëgg a tuub dugg ci lislaam yonent bi ne ko tàllal sa loxo mu tàllal gis nga bu doon ñun la bu doon ñun la da nga naan waa ji tàll leen ko ndeysaan moo tax yonent bi du ñun duñu moom sunu borom subhanahu wa taala mu ne gaa ñaa ngi lay laaj sàngara yasalunaka ñu ngi lay laaj anil xamri sàngara wal maysir ak carte xul tontul wax leen fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun bakkaar kabirun bu rëy moo nekk ci sàngara ism kullu daar lépp luy lore faasit luy yàq yadur bi nafs luy lor bakkan awil aql wala xel awil badan wala yaram awil maali wala alal awil ird wala der gis ngeen lépp loolu mooy bàkkaar bàkkaar mooy lépp luy lor di yàq bakkanu nit wala mu yàq xelam wala mu yàq yaramam wala mu yàq alalam wala mu yàq deram loolu bàkkaar la baaxul jullit daf ko war a moytu xoolal lii la ñu yàlla tere bàkkaar mooy loo xam ne lii rek ci yii ma lim foog mu yàqal la ci benn wax leen benn bàkkaar te bokkul ci yu muy yàq wax leen ko wax leen benn bàkkaar laa wax bu bokkul ci yi yàlla lim ne day yàq yi benn wax leen ban la benn mu lay lor wala muy lu ñaaw wala muy lu yàq sa bakkan wala muy yàq sa xel wala mu yàq sa yaram wala mu yàq sa alal wala muy mu yàq sa der bàkkaar lii kese la moo tax yàlla tere ko kon yàlla mi ñu tere lii yàlla kay def ñoo bëgg rek lii bu ko yàlla terewul woon sax ku xelu war ngaa xam ne lii dara ne baaxu ci nga bàyyi ko xoola lu baax lu baax doo gis mukk nit di ko def bañ na ko yaa bon nga fekk nit di julli rek nga ne ko kii moo bon lu tax dafa mën a julli waay ba nga ko gis ndeysaan gis nga de rey leen ko lu mu def dafa woor mës nga ko dégg doo ko mës a dégg rey leen ko lu mu def non kii jikko ji dafa baax kii dafa yaru ki ndànk lay waxee ki ndànk lay doxee mës ngeen dégg loolu boroom xam-xam yi tugalooyu dañ naan suñuy rey ni dañ naan mbareema won koo xaali kon won koo mii ji rey leen ko soo parce que dafa am lu mu wax waaye am na lu mu xalaat rek rey leen ko am na lu mu xalaat rey leen ko loolu doo ko gis fenn nag quand même parce que xel kenn demu fa kon yàlla lépp lu mu ñu tere soo ko xoolee càmbar ko da ngay fekk amaluñu njëriñ lu baax nekku ci xoola mbaam xuux yàlla ne bu leen ko lekk tey science ñëw di ñu wax li nekk ci mbaam xuux ay verre yoo xam ne ke dara mënu ko ñoral yàpp bi boo ko toggoon cent degré foofu la ndox di yem lépp lu ci nekk ñor ndox moomu mun ndox mu tàng moomu mënalul teeñaa yi nekk ci yàpp mbaam xuux pour mu dee loolu du dee boo ko daggee paaka it nga lekk ko day dund ci sa yaram toog ko ba mu ñor lekk ko day dund sa yaram yenent bi yàlla ne bu leen lekk loolu baaxul ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak xoola mu ne xaj su laalee ndab na ngeen ko raxas juróom ñaari yoon benn bi na am suuf gaa yi xool ñu ne xaj bu laalee ci ndab boo ko raxasee sept fois eau de javel omo saabu marabu big boy lépp du dañ du dañ de foog nga def ci suuf raas yi nekkoon ci gémmiñ gi mën a dañ ci bool bi lislaam lépp lu mu santaane loolooy jàmm nit ñi lépp lu mu tere musiba la bàyyil wax naa leen sànq wax leen lenn laa wax lu lislaam tere te musiba nekku ci wax leen ko wax leen benn sunu borom subhanahu wa taala mu ne gaañaa ngi lay laaj sàngara ne leen bàkkaar bu rëy moo ci nekk bi aaya bi wàccee ñu bëri dañoo bàyyi yàlla na bàkkaar moo ci nekk dañoo bàyyi ñoom xaaruñu yàlla naa leen araam na waaye wa manafii linnaas am na njëriñ pour nit ñi lan mooy njëriñ bu nekk ci sàngara jam u manfa wa huwa maa yasurru wala yadurru manfa soo déggee njëriñ mooy loo xam ne day jëriñ du lore yàlla nee na sàngara am na ci nit ñi ñoo xam ne amal na leen njëriñ lu tax waa ji naan sàngara lan la ci bëgg mandi boo naanee mandi yow amal na la njëriñ wala amal na keneen njëriñ kan kii jaay amal na keneen njëriñ kan ki ciy liggéey amal na leen njëriñ parce que bu weer dee ñu fay ko kon ñi amal na leen njëriñ almanfa mu ne walaa yadurru mooy luy jëriñ te du lor min saairi l aqwali wal afali wal mawad saa yoo déggee ñu ne manafi mooy luy jëriñ mooy loo xam ne day jëriñ du lor bu dee wax la bu dee jëf la bu dee matière la loo xam ne day jëriñ du lor waaye nag wa ismuhuma bàkkaar yi akbaru moo ëpp min nafihima seen njëriñ bàkkaari sàngara ak bàkkaari carte moo ëpp doole téeméeri yoon li muy jëriñ li muy jëriñ ci àdduna lu tuuti la mooy nga naan ko mandi mandi lan la ban njëriñ la la amal nga dem carte gañe say mbokki jullit wala say nit ñëw ku nekk indi alalam teg yow kenn nga ni ko doñ ñet yóbbu dem di ci gundaandaat jënd ci oto tabax ci ay kër denc say compte banque fekk alalu nit ñi nga jël carte loolu la di carte ñun ñi nekk fi yëpp dañuy ku nekk dañu indi 5000 kenn daal di ñibbeeg moom dem leen di ci ginaar daal ne soxna si wu tey tey affaire bi neex na nañ tey ndog bu fatat rek ak xëdd la ñuy xëdde fekk alalu nit ñi nga buub yóbbu loolu daganu faram moo tax yàlla ne am na njëriñ pour lenn nit waaye bàkkaar bi moo ëpp kon sàngaraa ngi noonu mbokk yi ak carte dafa xaraam ci alquran araam ci sunna araam ci ijma am na nag lenn saa yi lenn ci ay kàccoor yu lay liiral aaya alquran yi naan aaya bu ci njëkk yàlla dane wala taqa laa taqarabu salaata wa antum sukaara bu leen jege sàngara bu leen jege julli fekk yéen a ngi màndi ñeneen ñi ne yasalunaka anil xamr wal maysir qul fihima ismun kabir wa manafiu linnas wa ismuhuma akbar min nafihima ñeneen ñi ne yàlla dana innama alxamr wal maysir wal ansab wal ajsam rijsun min amali sheytan ñu ne ñetti aaya yëpp boo ko jàngee ba mu jeex amul fenn fu yàlla ne araam na waaw ñetti aaya yi amul fu yàlla tuddee ne sàngara dafa araam wala jàng leen aaya yi yenn saa yi nga gis yenn kàccoor ñu wax la loolu ngir bëgg a indi sikki sakka ci xelu jullit ñi ak bëgg leen tuur lëndëm comme ñenn ñi aussi seeni xel ak seeni xam-xam bariwul ñu bugg leen gàllankoor waaye bu yàlla ne innamal xamru wal maysiru wal ansaab wal azlam rijsun min amali shaytaan fajtanibuhu lan lañ bëggati baat boobu luñ ci bëgg keroog bi aaya bi wàccee saxaaba yi dañoo tuur mbeddi madina sàngara si ba bi naaj bi tàngee sàngara si am na ñoo xam ne bi mu leen xeeñee dañoo màndi ay yat la ñu jël toj ndaal yi dañoo defoon ay réservoir sàngara seen biir kër yi réservoir yi toj ñi xotti mbuus yi ñiy dem ca garab ya toj sëng yi daane lépp Omar ne ñun yàlla pare nañ ci allahumma antahaynaa minhu ñun pare nañ ci Sénégal nag ba léegi pareeguñ ci sàngara ñaata baar moo am Sénégal gouvernement bi dafa légaliser société bi defar sàngara gouvernement Sénégal dañoo légaliser société bi defar sàngara ñu ne ko am nga droit defar sàngara ñu ne ñiy naan ci baar yi am ngeen droit naan ñu ne borom baar yi am ngeen këyit jaay sàngara essence bi sax lañ fay jaay sàngara jullit araam na mu toog ci table bu ñuy servir sàngara su la sa benn xarit invité woon nga ñëw toog ci benn table ak ay nit table bi mu nekk ci digg bi fii coca cola ak boisson nangam sucré nekk fi fii sàngara nekk fi amoo droit toog ci table boobu jullit amul droit toog ci table bu ñuy servir sàngara amoo ko amoo ci droit l'islam daf la ko tere beneen bi mooy sàngara da kenn du ko fajoo yenn saa yi nga gis ku feebar ñu ne ko boo naanee sàngara wér comme il seram daf xaram lu araam kenn du ko fajoo sàngara daraam toq sax araam na toq daraam daganut daraam daganut lépp a xaram mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala bàyyi na aaya boobu mu ne wa yasalunaka beneen a ngoog gaañaa ngi lay laaj maaza yunfiquun ana lan la ñuy dépassé ci seen alal qul waxal yow muhammad al afwa li des ñu ngi lay laaj lan la ñuy dépassé seen alal bu ñu amee alal lan la ñuy dépassé ci yoonu yàlla mu ne leen al afu huna ma faddala wa zaada ala xaajati l insaan min al maali boo amee alal nga génne sa dépasse génne ndékki ndogu reer ah génne génne génne génne la des nga bu koo denc di ko rënk loolu ngay génne ci loolu ngay génne dépasse sarax azaka ak yi aju ci loolu loolu nga koy génne gis ngeen ndeysaan mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na gaañu ñu ngi laaj yonent yàlla muhammad lan la ñuy joxe mu ne leen wa anfiqu fi sabilillah joxe leen ci yoonu yàlla faaraadu bëggoon na ñoom ñooñu ay yaarifu ñu xam al juzu allazi yunfiquunahu lan la ñuy joxe ci seen alal min amwalihim fi sabilillah ci yoonu yàlla sunu borom ne al afwa ma zaada la dolleeku ala xaajaatikum ci seeni aajo soo amee alal nga régler say problème ba pare la des ci alal ja ci loolu ngay génne dépasse ci loolu ngay saraxe waaw ndeysaan yenn waaye dañ ko ne yow lu tax doo génne azaka te nga am alal mu ne dama dul denc dama dul denc moo tax ñii denc la yàlla na ñu génn azaka man lu ñëw ma bokkoog jullit yi moo tax du ma mën a génn azaka kii denc mooy génne azaka joxe waaye ki dul denc moom day saraxe joxe ci yoonu yàlla subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayru sadaqat ma kaana ala zahril ghina li gën a baax ci sarax mooy lu nekk ci ginnaaw am waa ji daa am ba pare mais am am bi am na lu nekk ci ginnaaw li nga am denc la nekk ci ginnaaw kër ga la nga denc aca foofu lañ bëgg nga ubbi ji cuqati fa joxe hmm? aywa li nekk ci ginnaaw am rawahu Bukhari kon gaa ñi bu ñu la laajee ne lan la ñuy joxe maza yunfiquun qulil afwa li des al afu mooy ma baqiya li des mu ne kazalika nii yubayinu llahu la yàlla di leerale al ayaati lakum ñeel leen al ayat aayey laalakum ndax yéen tatafakkaruna ngeen di xalaat mbokk yi aaya bi nekk sunu kanam nii sunu borom fi mu ko tàmbalee ba fi mu ko daanelee fi mu ko tàmbalee li leen di wan ne yàlla mooy yàlla lii alxuraan waxu yàlla la mooy fi mu ko daanelee moo lay wan ne lii waxu yàlla la lan la tàmbalee sàngara lan lay yàq xel aaya bi lan la ko tëjee laallakum tatafakkaru ndax ngeen xalaat lii yàlla wax leen sànq ci sàngara li muy yàq yépp carte li muy yàq yépp ak sarax kii joxe lan la war a joxe ndax li nga yor lépp ngay joxe mu ne la li nga desal lool ngay joxe lii kon suñ la ko waxee kon da nga cee war a xalaat laallakum tatafakkaruun ngeen ci war a xalaat bu doon da ngay naan ñu xamal la li nekk ci sàngara ngay carte ñu xamal la li ci nekk ngay saraxe ñu xamal la li ci nekk da ngay xalaat wala doo xalaat da ngay xalaat foog yàlla dafa bëgg nit ñi di raisonner xel yi di yëngu buñ la waxee sàngara li tax yàlla tere bi ñuy fóon bi ñuy log bi ñuy pikiiru bi ñuy naan bi ñuy tux bi ñuy bi ñuy wala jeex na yooyu rek la dafa am bu ñuy tux tudd yamba am bu ñuy log tudd pion am bu ñuy fóon tudd drogue cocaïne am bu ñuy pikiiru am bu ñuy naan yàlla wax la li muy def mu wax la carte li muy def kon bu la nee laallakum tatafakkaruun ngalawaay yàlla ni la leen di wàcceelee ay aayam ndax ngeen xalaat kon war nañoo xalaat xel lan la jëriñ xalaat yoon bi bul fi jaar lu tax diw dafay jaaroon démb gaa yi duma ko nangu li mu yor nga ñëw waxtu woowu da ngay jaar wala doo jaar waroo jàll lan moo lay dimbali ba doo jàll xalaat waa waa waxoon nañ ma ko de waxoon nañ ma ko dafa am ñaari gumba yu ànd gumba yi dañoo mënoon tooñ dañuy bàyyi ba tubaab bi sangu ci piscine bi dem rek ñu ñëw dugg rek tëb bu jum commencé sangu tubaab bi nand leen benn bis mu sangu ba pare rek daal di manko ndox mi bàyyi ko noonu ñoom ñaar ñu ñëw bëtt sàkket yi kenn ki tëb bujug rek daal ne karañ kat kën affaire yi métti mu ne keneen ki ñëwul kooku ne ko déedéet dégguma buju jung jung dugguma de li ma dégg du- du daanu ndox mu ne ñëwal ñëwal tey piscine bi fees na mu ne ko déedéet ñëwuma de lii ma dégg kay wuu du daanu ndox bii dafa wuute gumba googu lu ko musal dafa xalaat waaye bu dofoon topp moroomam mbële moroom bi lan la bëggoon mel ni moom ñaari sàcc dañoo ànd di sàcc kenn ki dugal ci loxo loxo rek ci suuf di ubbi rek ñu ne rap loxo bi jàpp waa ji jàpp rek jël paaka bi rek daal di këtt loxo bi kët kët, kët daal di koy bàyyi waa ji gaaw rek nekk loxo bi karaj ci ginnaaw nëbb ko ne xarit bi dugalal xarit bi dugal loxo bi ñu jàpp ko mu xëcc xëcc ñu jàpp mu ne dañoo jàpp sama loxo mu ne bala ñu koy bàyyi mu mel nii ko bala ñu koy bàyyi mu mel nii gis nga soxor parce que lii dal na ko mu bëgg lii dal kee kee tamit loolu la woon waaye kee dafa utiliser xelam moo tax mu mucc moo tax xel soo gisee yàlla may ñu ko mooy lan pour ñu xalaat moo tax mu- li ëpp ci ay aaya ci alquran lii lay jeexee waa safara bu ñu duggee safara ñu leen di laaj yéen waa safara lu ngeen doon xoole ba dugg safara xam nga luñ tont dañoo bañoon xalaat law kunna nasma aw naaqil ma kunna fi ashaabi sair ñun buñ doon dégg di xalaat tey duñ dugg safara kon ñàkk a dégg ñàkk a xalaat day yóbbu nit safara kon yàlla bu waxee ak ñun ba pare daat ne ah kazalika nii yubayinu llahu la yàlla di leen leerale lakum ñeel leen al ayaati aaya yi laallakum ndax yéen tatafakkaru na ngeen di xalaat kon war nañoo xalaat fi dunia wal axira ngeen xalaat ci seen mbiru àdduna waaye ngeen xalaat ci mbirum alaxira xalaat ci mbirum àdduna sàngara ni muy yàqee xoola sàngara tas na sëy sàngara tas na liggéeyukaay nga gis waa joo xam ne lu tax ñu daax ko fu muy liggéeyee naan rek mu ñëw ñu ne ko xam nga lan la léegi yow ñaata nga fi yor demal ñu fay la nga dem ndeysaan waa ji xëy na mu ñëw fekkaatul jabaram ci kër gi lan la jabar ji ne ko mënatuma nekk ak yow mandi guddi mandi bëccëg tàqale na kër nga gis bàyyi ji dem bàyyi doom ji am na benn femme boo xam ne dafa jaay sàngara jaay sàngara jaay sàngara ba waa sobuwaar jox ko jox ko jox ko jox ko drapeau takkal ko garaat waaye papa mus cee lekk dërëm papa ji da koo bàyyi àdduna ak alaaxira su ma leen waxoon fu mu nekk rek ngeen xam ko waaye jaru ko day jaay sàngara rek papa ji tere ko mu bañ papa ji daal di koy araamal daa jaay sàngara ba am ci kado moo tax lii la yàlla di bëgg pour ñu xalaat ci mbirum àdduna sàngara day yàq alaaxira safara nga jëm carte day yàq ci àdduna alaaxira nga dem safara moo tax yàlla mu ne fi dunya wal axira ngeen xalaat ci àdduna ni sàngara di def nit bi jaaw kuy naan sàngara sax ak bi jaaw nit nii na normal bu dul naan bokkul kuy naan sàngara bu màggetee bi jaaw yi nu muy mel day sokola day xal sokola lay def ba pare da lay indil feebar sa yaram sàngara day yàq yaramu nit day yàq sa aduna yàq sa alaxira moo tax yàlla mu ne fi dunya wal axira sàngara baaxul carte tamit kazalik yokk sa ñaawal waaw boo ya boo guddee fan ñaaw da ngay dem ba sa tuñ yi wàcc xonq cor nga ñàkk doole sa bët yi sa bëñ yi lépp lay yàq sa organes yi nga yambare foo tourné ñu naa la eh, bu fi jege de fi taxaw laa benn conférence laa doon wax benn daa doon def Médina benn waay mandi jóge fële rek ñoo la benn waay ñëw bu punkal ne ko eh doxal dox bi mu ne ko ah na nga yem de mu ne ko doxal dox bi laa wax waa ji normal kay defar ma ne ah ndeke naan mandikat xam na lu xew ma xam ne bu doon waa ji keroog foofu lay nekk rek di turbale dañu yàqal waaye waa ji ponkal moo génn ci baas bi rek ne ko eh sa waay mu ne ah mu ne ko doxal dox bi mu ne ko ah mu ne ko doxal dox bi mandikat bi jubal direct ma ne ah allahu akbar sàngara baaxul nan lañu yàlla musal nan lañu yàlla musal sax woor ba ngoon di dogee sàngara keroog benn waay laa dégg ci rajo bi ñu ne mu ne ah wax dëgg yàlla nag bu ma naa ne bu ma première guux moom wala première tàndarma cigarette mooy deux mooy deux moom moom moom awma ci sax non wala loolu si gaa yi yandoo yandu rek toxoo rek doy na moom asalaamaaleykum al taal naa moom commencé ci ci télé bi ndeysaan gaa yi doon def reportage ci ñuy tux cigarette naka la ñuy dundee koor gi benn waaye ne ah wax dëgg yàlla war nañoo mën a bàyyi de ndax ku tuxul soo ba ngoon war ngaa mën a bàyyi waaye musiba musiba boo ko tàmmee doo ko bàyyi tàmm njaaloo doo ko bàyyi boo tàmmee fen dootoo ko bàyyi boo tàmmee sàcc doo ko bàyyi boo tàmmee sàngara dootoo ko bàyyi day nekk drogue day nekk benn sax ci sa yaram sax bi bul bu xasanee rek nga jóg feek defoo ko doo normal ah cigarette day tas ko day tas kër kay waaw ñu ñaari soxna bi nga jékki-jékki ni mënatuma fee toog waaw et puis yow loolu la loolu la day yoomloo nit ah moom yàlla ak sàngara sax dalay yoomloo waaye jékki-jékki rek soxna yi ne la ah cinquante et quelque ans moom doo ko am ci télé kii yoru ko cigarette ñetti njëriñ la am cigarette ñetti njëriñ hmm? Hmm? bu njëkk bi mooy doo bi jaaw xaj du la mbaw hmm? doo bi jaaw xaj du la mbaw ñetteel bi sàcc du sàcc sa alal baax na de ah xam nga tax doo bijaaw ay gaaw de xam nga tax sàcc du sàcc sa alal doo nelaw guddi da ngay sëqar rek sàcc bi ne kii nelawul xam nga tax xaj du la mbaw parce que da ngay yor yet boo guddee fan yet ngay yor ñetti tànk ngay doxee xaj du mbaw ko yor yet loolu mooy njëriñu cigarette ñett yi mooy njëriñam doo gudd fan xaj du la mbaw doo nelaw guddi ah benn du ci njëriñ ah ñett yooyu la am njëriñ de man jigéen ñi sax jigéen ñi am jëkkër yi tox sax ñoo ma mën jigéen bu am jëkkër juy tux man de yaa ma mën sigaret nu mu xasawee xam nga nooy nekkee ku koy def guddeeg bëccëg ba ci dëkk dafa gémmiñam
jigéen ñi as poste de santé jigéen ñi wasin yónni cigarette di tux jigéen juy tux fu mucc rek yónni allahu akbar yal nañu yàlla aar mu ne wa yasalunaka gaañaa ngi lay laaj tey say tey am nañ ay yasalunaka de ñetta ngoog anil yataama ci jirim bu baayam génn àdduna ndeysaan papam faatu lan lañ war a def ak moom xoolal yàlla lu mu wax mu ne qul waxal islaahun lahum na ngeen yéwénal ci ñoom lu baax rek jirim jirim Sénégal nag ak a ñoo gaaw ci jirim lekk alal ji ba mu jeex waaw bule ko génne ko ci kër gi waaw takk yaay ji ba pare daan ne xale bi du ma topp yenn saa yi nga dégg ku ne man du ma yar doomu jiit le sama kër waaw ndaw si daan ne waaw waaw yaay teel ma xale bi may sëyi doo ko yóbbu nga jaamu ci moom yàlla kii baayam dafa dee imagineel bu doon yow la boo deewoon nga bàyyi doom bu ndaw est-ce que beneen góor bëgg nga ñëw mu takk sa jabar daan ne sa doom ji du dem xale bi ku koy yar nga gis ñu yóbbu xale bi ci maamam ndeysaan gisoon naa benn waay dem naa benn dëkk bu tudd Sédhiou femme bi dafa jël doom ji dem may ko catholique yi catholique yi comme xam nañ ne problème mun na ami ëllëg ñu ànd ak moom police ñu bind kayit mu signé léegi xale boobu catholique la yow ne jullit yi musiba bi ñuy def billaahi maa ko fekk seeju man maa toog ak ndaw si te xam nga lu garaaw mooy ñaari kër yee jàkkaarloo këram a ngi nii kër gaa yaa ngi nii ñooñu waaye xale bi du sax jege fii du gis yaay ji ba daw dem ci moom léegi xale boobu catholique la jirim yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee soññaate mu ne ana wa kaafilul yatiim mu ne man ak ki yar jirim nii la ñuy mel yowmal qiyaama mu daal di joxoñ ñaari baaraam yi mu ne nii ki yar jirim sallallahu alayhi wa sallam xoolal ñun tey hmm? wa yasaluunaka ñi ngi lay laaj anil yataama ci jirim yàlla ne inna allazina yaakuluuna amwaala alyataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran wa sa yuslawna saira ñiy lekk alalu jirim na ñu yëg ne ñu ngi lekk seen biir safara ëllëg yowm alqiyaama bu ñuy dekk ci biir safara jahannama la ñuy dekki nee na bi aaya bi wàccee xaafa dafa ragal almuminuuna way gëm yàlla yi min haza alwaid ci tëkku bi yàlla tëkku kuy lekk alalu jirim bi aaya bi wàccee gaa yi dañoo tiit wa fassala man kaana fi baytihi yatim yakfuluhu nee na xam nga gaa yi bi loolu bi mu amee lu ñu def da ngay gis ñi nga xam ne ñoo yoroon ay jirim seen kër dañoo mujj tàqale jirim yi ak seen waa kër teg jirim yi côté di leen toggal lekk yoo xam ne di leen jox naan yoo xam ne utal leen appartement yoo xam ne ndax tiit wala saxaaba yi defoon yàlla ne leen déedéet comme yéen a leen yar li ngeen di lekk nañ ci lekk li ngeen di naan nañ ci naan li ngeen di sol nañ ci sol fi ngeen di tëdd nañ fa tëdd nañu mel comme seen njaboot waaye dañoo bëggoon dëggu rek ñoom te xoolal ñun loolu moo tax jullit yi war a bàyyi xel seen borom lim leen di sant kenn ku nekk da ngay xool mbir mi bu doon yow la xool ko ci sa bopp rek boo génnoon àdduna tey ndax bëgg nga ñu saax-saaxee sa alal bu des sa ginnaaw sa njaboot tumaranke tasaaroo nekk ci mbedd yi di tambaambalu du ñu am ay loxo yoo xamante ne ci la ñuy nekk ku nekk rek natt ko ci sa bopp moo tax yàlla gis nga dundu islam li muy njëkk a def mooy yow lay aar tey ñun bu ñu dundee diine kenn ku nekk sa bopp ngay aar tey bu ma fi bàyyee woon doom sama xel day dal ndax dama naan gaa yaa ngi fa doom ji du tumaranke boo fi bàyyee doom sa xel day dal ndax danga naan doom ji du tumaranke parce que mbokk yaa ngi fa mais instant bii nii ngay waxuma sax nga dee de ngay tukki rek sa xel du dal ngay tukki sa xel du dal même boo yóbboon sa doom ba sa kër papa ak sa yaay sa xel du dal sa papa ak sa yaay laa wax de sa xel du dal waxuma laa nag nga bàyyi leen ak ñeneen nan leen yàlla aar mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne gaañaa ngi lay laaj ci jirim tontul qul islaahun lahum xayrun yéwénal ci ñoom def ci ñoom lu baax de moo gën lépp lu nit di def def lu baax yor xale sa kër bu xiifee nga jox ko mu lekk bu maree nga jox ko mu naan bu feebaree nga faj ko bu raflee nga xottil ko bu waree jàngi nga dugal ko mu jàngi bu waree dugg métier nga yóbbu ko mu ut liggéey nga fexe ba du wax ne cëy sama papa bu dundoon fexeel ba mu fàtte lool loolu lañ bëgg waaye nga jël doomu jàmbur walla nga takk yaay ji def doom ji jàmm waaw am na góor ñu doy waar waaw non man nag xama lay takk waaye sa doom ji du ñu topp sa doom ji du ma topp de moom it mu ñàkk fulla ku bëgg akara kay da ngay ñeme kaani da ngay ñeme soos waaye yaay ji laa bëgg bëgguma doom ji xaw ma ne waaye uude nu mu la gisee la lay ëwale ndeysaan am na fi xale yoo xam ne ci xale yu demee noonu tey yenn saa yi xale yooyu nga xam ne juróo leen ay jirim lañ da nga leen yar rek yenn saa yi ñu dem ba gën say doom ci yow dafa am benn góor amul doom doom yi mu yar yëpp dañ ko dañ ko ko may mu feebara jëkk ba xale yooyu ñoo jël oto dugal ko ci indi ko Dakar yóbbu ko principal di ko faj benn bis muy faju ji mu ñëw ba ci feu rouge bi oto bi taxaw benn paa ñëw naan sarax nga yàlla doom ji bu ko sarax mu ne bu ko sarax moom ñu ne ko ah mu ne bu ko sarax feu bi daal di verte ñu dem ja xale bi daal ne waa papa lu tax nga ne ma ko sarax mu ne ko defalul yàlla dara defaloon yàlla dara du taxaw fii di yelwaan mu ne ko man maa ngi nii ndax am naa doom bu ma jur sama biir mu ne déedéet foo ma jële dëkk ba lu tax ngay ni ma fi di la faj lu tax mu ne ah waaye pap nga may laaj lu tax yow mu ne jeex na soo defalee yàlla dara rek yàlla dina la aar doo taxaw mbedd mi di yalwaan boo defalee yàlla dara ay doomu jàmbur la yàlla di tàggat ñooy ñëw di la defal ay doomu jàmbur yooyu jurul ñoom la yàlla di tàggat ñu ñëw yore la kon nan xam yàlla waaw dañ nekk ay waayu yàlla waayu yàlla du sonn de lu koor gi metti metti metti metti bu ngoon jotee mu am lu mu ndogoo lu dëkk bi tar tar tar tar tar du ñàkk lu mu koritee du ñàkk lu mu tabaskee billaahi ku yeba nekk waayu yàlla waaye yàlla du sonn de kuy xaar waayu yàlla sonn da ngay am problème yow yaay sonn waaye waayu yàlla du sonn est-ce que waayu Macky Sall dina sonn waayu Macky Sall dina sonn du sonn du jox da koy jox waayu sëñ Mansour nag day sonn du jox waaye sëriñ kii matiley nag day sonn du sonn de sëriñ bi toog ne kii sama waay la taalib yëpp di dégg mu ne kii ñu ne ah mu ne kii mooy sama waay lu ko gaa yi xalaat baax na ndeysaan wala waayu yàlla nag fi mu nekk nii am na ñun ñoo xam ne bu yàlla ne woon kaa ngi nekk sama waay Macky Sall ne la kaa ngi nekk sama waay nga ne waaw Macky maa ngi ñëw booboo gën a gaaw da nga naan yi booboo gën a gaaw rek xaar xaar ba ndeysaan gars yi wóoluwuñu yàlla wóoluwuñu yàlla dañ ko wóoluwul xam nañ ne am na mais wóoluwuñ ko ndeysaan wóoluwuñ ko kóolu tegee des kóolu tegi moo des yaqiin loolu la gars yi naan yaqiin kóolu te allahu akbar benn waaye dafa ànd ak jabaram ñoom ñaar nag seen tempérament yemul jabar ji dafa gaaw a mer gaaw a xënt gaaw a xuloo gaaw a xeex waa ji nag bu géej gi doon ñëw sax du daw day toog ñu ànd dugg ci benn bato bato bi këpp ku nekk di xool naka ngay def ba say bagage ak ki nga àndal mucc waa ji toog rek jabar ji xool ko ba caag rek ne ko yow poñam di ko commencé di ko wax wax yu bon waa ji daal di ne tekk rek ba caag rek waa ji daal dugal loxo ci poos bi rek génne benn paak daal di koy teg ci baatu ndaw si rek ndaw si ree waa ji ne ko looy ree mais damaa xam ne paaka bi da nga koo génne nii da ngay sóob rek xam naa ne ñeme woo ñeme woo ko war ñeme woo maa jam ñeme woo maa rend mu ne ko lu tax mu ne parce que man rek nga bëgg mu ne waaw yow nga xam ne man dama la bëgg ba du ma la def lu bon man nga bañ man man tamit ma bañ a bëgg sama waay te xam ne sama waay du ma def lu bon mu ne ko yow kan nga bëgg ba du la def lu bon mu ne ko sama borom dama am kóolute ci moom ne bato bii ma nekk du ko labal moo tax ma teey tiituma bi ma tegee paaka bi ci yow est-ce que tiit nga mu ne tiituma de mu ne man tamit lu may tiit teg maa bàyyi ak sama waay ma nit waaye yàlla du tiit lu affaire yi tar tar tar tar nga dégg mu ne xasbunallahu wa ni'mal wakil xasbunallahu wa ni'mal wakil yonte yàlla Moussa bi ko Firawna dàqee ba mu ñëw ci géej gi mu gestu gis Firawna di ñëw mu ne nii gis géej gi gars yi ne ko tey ñu dee mu ne leen déedéet tey ñu dee mu ne déedéet ñu ne lu tax mu ne maa ngi ànd ak yàlla inna allaha maana ndeysaan inna allaha maana loolu la yonent bi waxoon ba mu duggee ci xunt mi inna allaha maana loolu la ibrahima waxoon bañ koy sànni ci safara si inna allaha maana loolu la yusuf waxoon bañ ko tëmbalee ci teen bi inna allaha maana inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun aadama loolu la waxoon keroog bañ koy wàccee kaw asmaan mu ne inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun mbokk yi bu ñu bëggee mucc àdduna ak alaaxira nanu ànd ak yàlla inna allaha maana sunu borom ne subhanahu wa taala na ngeen yéwénal ci jirim yi wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seen i mbokk lañ ngeen jaxasoog ñoom ci dund bi ndax seen i mbokk lañ wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida ki yàq min al muslih ak ki yéwénal ki yàq alalu jirim ak ki yéwénal yàlla xam na wala sha allahu bu neexoon yàlla la aanatakum dana leen sonal waaye inna allaha yàlla azizun ku not ci nguuram la xakimun ku xereñ la bu neexoon yàlla yàlla sonal leen de kon bu leen sonal kenn am doole rek di sonalaate di dóor dënn di def la neex bu neexoon yàlla mu sonal la comme yàlla sonalu la nag bul sonal kenn walaw saa allah la aanatakum al anatu al mashaqo asadid mooy coono bu tara tara tara tara tara comme yàlla deful loolu ko nag bul ko def keneen mbokk yi jullit yi ñaari aaya yi doon jàng dinañ ci jëlee ñeenti juróomi mbir bu njëkk mooy xurmatu xaraam na alxamru sàngara wal maysir ak carte dafa xaraam lan moo tax mu xaraam mooy yàlla mu ne fajtani buuhu mooy tandiku leen ko ak wax ji mu ne fahal antum muntahu ndax bàyyi ngeen ko wala bàyyiwu leen ko loolu moo lay wan ne sàngara dafa xaraam ñaareel mooy bayaadu afdalu sadaqa yàllaa ngi leeral sarax bi gën ci sarax yi mooy atatawu mooy saraxu coobarew loo volontaire u joxe yàlla nee na am nga ci tiyaaba bu rëy ñetteel mooy istihbaabu tafkir fi dunia wal axira yàlla dafa bëgg mbiru àdduna ak mbiru alaxira ku ci xalaat xalaat mbiru àdduna lépp looy dugg xalaat ci lépp looy def xalaatal doomu aadama du làmbatu du tëñëx tëñëxi lépp looy def ci sa àdduna da nga ci xalaat yàlla loolu la bëgg kon nañuy def loolu ñeenteel mooy jawaazu xiltu maalul yatim bi maalu kafilihi dagan na nga jël sa alal yow mi yar jirim bi nga jaxase koog alalu jirim bi waaye nag bul ëppal ngeen ciy lekk di ci dépaasu bu jirim bi amee téeméer nga am téeméer ngeen boole dem marché bu jirim bi amee junni nga am junni ngeen dajale yàlla bëgg na loolu waaye li bon mooy nga denc sa bos di lekk alalu jirim bi ida kaana arbahu lahu aw awfar wa huwa al maana al islah su fekkente ne yow moom moo la ëppale moom jirim bi nga ciy dindi di boole ak sa bos ngeen di ciy lekk bu fekkee yow yaa ko ëppale nag wax dëgg yàlla war nga koo denc war nga koo dencal yaa ko ëppale alalam du dara moom papaam dafa dee deux cent cinquante mille dong la ci am wala un million dong la am yow am nga alal ju dul jeex nga ni ñu wóolu la jox la ko bul profité ci un million bi ndax yow yaa ko ëppale su fekkee nag moom moo la ëppale yow miskin nga amoo dara dara dara boo añee doo reer boo reeree doo ndékk ñu jox la ko ah nga ciy dindi ci alal ji ngeen di bokk yéen ñaar di lekk loolu islam may nag juróomeel mbokk yi mooy xurmatu araam na maalal yatim lekk alalu jirim def xaraam wa tahziru yàlla daf daf ñuy moytandikuloo minal mumaasa bihi ci foqale lekk ko ba mu jeex tàkk yàlla daf ñu koy tere ak jaxase ko ci sa alal pour mën koo lekk kon mbokk jullit yi li moo doon ñaari aaya yoo xam ne moom la ñuy jël tey li ci am ay njuumte ci ñun la li ci mat ci yàlla la bàyyee ko ñu ngi koy jégglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu